jërë ngeen jëf mbokk yi xeet yéen ñu suivre à travers MPROD TV la chaîne du renouveau gannaaw bu ma leen nuyoo siyaar leen jox leen seen wàccuwaay baax a baax du nuyu ñi nga xam ñu ngi ñu nekk ci côté diaspora bi tamit ñu ngi lay nuyu di leen bàyyi xel bu a ñi nga xam te ne nii ñoo nekk ci hôpital yi hôpital yu kër yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp nuyu ñi nga xam te ne aussi ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla na yàlla sàmm leen aar leen ba mën a dellusiwaat seen njaboot te ñu ngi fii nag ak nga xam te nii yaakaar naa ne kenn doon def commune bu Sangalkam wala département bu Rufisque wala commune yi nekk Sénégal yëpp kenn du présenté kenn jëmm ji toog ñu koy nuyuwaat bu baax a baax a baax a baax moom mu nag yàlla daal koy def moom normal tànk yoo xam ah, na ko waaye mu nekk benn président bu ñu benn président mouvement bu ñuy wax Nabar xam naa ne mouvement Nabar moom mooy nagaaw <laughs> naa fee di ñu koy nuyu bu baax a baax monsieur monsieur Ngueye ko xam te ni ku social la ku respecté la ñu koy nuyuwaat bu baax a baax a baax donc dama koy bàyyi mu daal di présenté wu ak askan wi ko xam te nii ñoo koy suivre à travers MPROD TV ñu daal dugg ci waxtaan wi waxtaan bi nag waxtaan surprise la lii mbetteel la dañ koo bett léegi nii ñëw ak moom donc grand maa ngi lay nuyu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mhm. Euh, Cheikh maa ngi lay fay. Mhm. di nuyu Moustapha aussi. Euh, di leen sant ah, mhm. si surprise bi. donc muy lu lu ma bett aussi. ginnaaw bi ma nuyoo waa Bambilor yëpp. di nuyu am di jàmm yi. di nuyu waa Sénégal. di nuyu waa département bi yëpp di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu aussi sunu responsable politique yi fi nekk yëpp. Mhm. si biir nuyu boobu maa ngi nuyu le ministre Ismaïla Madior di ko nuyu bu baax. Mhm. di nuyu aussi l'honorable maire di Ndiagne Diop maa ngi koy nuyu. donc euh, di nuyu ñëpp daal. grand gannaaw ba la bettee daal lay seet si tey impromptu bi def laa seet mhm. ndax dafa am benn waxtaan bu ñu doon def ñun suñu biir am benn idée bu ñu doon def suñu biir. Mhm. waaye mu am ay ndaw yoo xam te nii ñu ngi nekk ci commune Bambilor. Mhm. ñu am ñu ci waxtaan. waaye daal ci waxtaan bi ñu waxtaan ak ñenn ñi. yow lañ choisir pour def la personnalité de l'année <laughs> xam naa ne. waaw <laughs> mais mais yéen. <laughs> léegi ah mais. mbetteel mi lii la. waaw loolu de bett na ma. Euh, personnalité de la l'année pour la commune. Mhm. ah loolu de lu lu baax la. Mhm. Euh, lu ma bett la. Mhm. mais bëggoon naa xam noo leen ko defee. lan mooy critères yi yéen. den yeewu rek suba teel rek ne man la wala voilà lan la lan laa def lu spécial. lan ngeen gis daal ba ne ma yow la. d' loolu da ciy am solo parce que je pour xoolee sax. man maa war a poser question <laughs> ah. tey <laughs> na lu am solo donc xalaatee c' est beneen bi que moo ko xalaat. Uh-huh. ñoo ko initié ñoo toog waxtaan ci man ak Tafa ñu toog ne lii war na mën a nekk pourquoi pas ñu def ko. parce que gis nañ ni bon demuñu bi. Uh-huh. waaye ñun dañuy bëgg bokk chaque fois ci ñuy def loo xam te ni njëkk am ci zone bi MPROD TV da ciy bëgg a dugal loxoom.

nga nekk li nga xam moom moo di directeur. Mhm. ci gouvernement bi. Mhm. ñu tegaat ci ay fan. Mhm. nga am ay ay bien yooyu jox ñi nga xam moom moo di élèves yi ci côté lycée bu Bambilor. donc moom mu ne critères yooyu te am na yeneen ak yéen ci teg critères yooyu. te y' a pas mal de personnes yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi. comme yow ñoo xam y' a des acteurs culturels yoo xam ne ñu ngi dund ci wàllum politique. mu ne am na suñu bëri ñoo xamante ne bi politique bi élection yi jàllee déggaatul leen ci dara. defaatuñu benn activité donc yow la ci gis yow la ci bàyyi xel te yow la gis ngay def. donc moom bu ñu waxee lool tombeek ñun tamit improté am na ñeneen ñu laajoon. Mhm. ñooñu daal lay choisir ñu ne ah comme am nañ la maximum kuréel baa ngi nii kon le mieux à faire c'est Ousseynou Gueye mais bu fekkoon dañu jox suba beneen Talla Diop la wala beneen Talla Ngom ci mhm. Talla Ngom la ñuy dem mais mhm. ñoom ñoo la choisir mais du Impro moo choisir monsieur Ousseynou Gueye ñi ñu woo téléphone laaj leen waxtaan ak ñoom ñoo ñoo la tànn noonu lañ ko choisir ñun di leen sant euh, loolu lu baax léegi yéen da ngeen innover parce que auparavant communication bi yàgg na fi. Mhm. mais impro quand même euh, da ngeen innover mhm. surtout direct yi ngeen di def xam live di defi direct dafa dafa am solo. Mhm. Euh, dafa am solo parce que nit ñi dafay nekk lu instantané nit ñi di xam ni lii direct la. nit ñi di oote. nit ñi di def lu ne. Euh, yàlla def na si yéen sen plateforme bi ñu fi ñëwé ci koor gi. Mhm. ce jour-là je pense on a eu 4000 et quelques. en mhm. live. Mhm. je me rappelle. c'est euh, laay tooñee sax ki mu dama dama yàkkamte sa communication parce que nit ñi dañuy <laughs> seetaan on a eu 4000 et quelques en live. c'était pas beaucoup mais nak bu ñu jàppee ni Bambilor rek lañ né ñu am loolu. si ben diffusion donc c'est c'est important. Euh, beneen bi li nga wax euh, ay ordinateur yàgg naa ko maye. Mhm, mhm. parce que peut-être man maay sama forme de communication wala sama forme de liggéey. Mhm. man li may def si dëkk bi damay def selon li ma war a def. parce que fi laa dëkk fi laa juddoo. loolu laa war a def. lycée nekk naa président APE pendant quatre ah. ans. avant y avait Saïb Laye. ma remplacé ko. mais tey la ma war a def si lycée dama koy def. may naa fi naata du benn du ñaar. Mhm. donc <laughs> bi ma mayee nii yàggul mais am na ñeneen ñu fi jiitu. Mhm. c' est sûr certain que même ñi ma mayoon peut être aujourd'hui peut être ñi ngi ak seen mhm. i master. éducation daal ku siy def da si war a def. parce que xale yi ngay defar moment bi nga leen koy defal matuñu. mënuñu ko. mais soo leen ko defalee ay kilifa la ñuy doon. te ñun dañu war a ñafe surtout ñun ñu nekk si dëkk bi ba dëkk bi kër gu nekk rek am cadre. jàng rek moo mën a soppi nit. Mm-hmm. bu ñu mayee xale yi ñu jàng. may leen opportunité di leen defal. Mm-hmm. si li ñu am as tuut ñu yëkkati di leen ko jox. Mm-hmm. di leen orienté si sunuy xalaat. man loolu daal laay def. loolu ngay def. loolu moom depuis voilà depuis bas âge loolu laay def parce que noonu lañ ma def. damay fréquenté ay grand ñu lay xalaatal di la xelal. donc loolu aussi war nga ko mën a say petit frère defal ko doom defal ko jarbaat. Mm-hmm. suñ ko dee def rek Bambilor dafay gën a dafay gën a jëm kanam. Mm-hmm. waaw loolu mooy idée bi. donc loolu moom lu am solo parce que boo ko waxee dinañ ko gëm parce que ñun bi ñu fiy dugg ñu ngi fekk suñu mu jeunes yoo xam ñu ngi doon toog. Mm-hmm. ngay defante ak ñoom benn rencontre boo xam ne ñoom ñëpp ci nekk bi ngay génnee mu ngi sourire mu ngi am jàmm nga xam ne ñi ak mais am na benn savoir boo xam te nii indi woon nañ ko mais am na beneen savoir boo yokk si ñoom donc mu nekk loo xam te moom la ndaw soxla donc tey par rapport ak nomination bi nga xam te moom la MPROD TV daal di am initiative bi mais COP te nit ñu nominé la. Mhm. ba nekk yëg nga ci am. waaw lu rafet la. Mhm. Euh, mooy ne rek naa góorgóorlu. Euh, que ni li ngay def nii. Mhm. baax na gën ko continuer. kon man bu doon def benn tey war naa def fukk. loolu ngeen ma def dañ ma sas. mooy ne kon nit ñi ñu ngi bàyyi xel. nit ñi ñi ngi xool yow say jëf. Mhm. donc li may def baax na kon naa ko continuer. Mhm. parce que bu fekkoon damay def leneen xëy na nit ñi dinañ ko wax aussi. Mhm. parce que nit ñi kenn moomu leen ah. nit ñi du kenn liñ naan nit moom moom mooy xool. li nga xamante ni yow xam nga nit man mënuma wax sama bopp. mais nit ñi ñoo la mën a wax ci yow. ñoo mën a wax exactement. yow ban moment nga toll. ak lan ngay def ak foo ne. loolu nag su ma amee sens ngeen ñëw indil ma vraiment prix. dal dina ma yow lañ def personnalité de l'année au mhm. niveau de la commune mhm. d'après bi ngeen si waxtaanee ak ay seen quelques nit mhm. ñoo leen di liggéeyandool loolu damay def lu dul sant si yàlla mais féliciter leen sant aussi su may wayjur parce que aussi ñoom ñoo ñu yar ba nga xamante ne ñu mën a xam lan lañ war a def si nit ñi man awma lu dul bambiloo bambiloor kese laa am donc boo amee bambiloor dëkk bambiloor chance la. man mhm. loolu laa jàpp. donc est-ce que tu pensais que ni ren jii dina la nominer am benn personnalité boo xam ne yow lañ koy nominer en partie de de cette année deux mille vingt trois est-ce que xalaatoon nga ci année bii nii nii nii. xaaroon nga ci impôt wala keneen keneen sérieusement xalaatuma ko quand même xalaatuma ko. Mhm. Euh, xalaatuma ko moo tax man laaj leen seeni critères. Mhm. donc xëy na am naa fi benn parce que da nga ni conseil wu la nii. dama koy sax tooñee. parce que dañ ma def conseil technique mois d'octobre je me ma proposé novembre décembre mhm. même pas janvier février mars ñu nommé comme directeur. ça mhm. ma ma je pour le Sénégal. ligué pour faire ne am solo mhm. dématérialisation au niveau du ministère de la justice. parce que sant je suis di aussi ñi nga lolou dal la vraiment si côté luñ si wax. Mhm. ñu ci mhm. mais di ñaan yalla des nit ñi doli ñu ñaan. Mhm. tay ñaan mais amna ben affaire mo ñun téléphone. la plupart liñ ñu wax ci lu bax li ngay def. amna ci ni politicien dañuy bëgg seen jëf yo ñu médiatiser nit tu préfères def dans le ah, calme du mais amul sens amul sens quoi xam nga boo passion passionné de quelque chose li li la neex ngay def mhm. man li may def daf ma neex su ma demee école di fa def mhm. du ma yëg lu may def mhm. du ma ko sentir bu ma doon génne lu bari def ko it yëguma ko du sentir même même ma famille du ñu xam sax ni def naa bi may école par exemple j'étais avec euh, madame ak euh, Penda ak euh, Khady mais bi ñu dañuy dem ñoom si oto bi lañ gisee ordinateur bi ñu ne mais lii lan la ah, dafay des yow sa ordinateur bi doo ko bàyyi ma ne non day wàcc day dem ñoom ñu koy soog a gis. Mm-hmm. donc pour wax la daal soxlawul daal. Mm-hmm. lu baax daal soo koy def. Mm-hmm. tu n'as pas besoin naan naa ko publier wala ne ñi ngi koy defal nañ ko xam. su yàggee ngay publier naan lii laay def lii laay def. su yàggee ngistal lay doon. d'accord donc am na solo tey moom lañ seet si woon à travers li nga xam te ni moo di nomination bi mu ko bi ñu ko MPROD TV nommé mais ànd ceeg ñi nga xam te dañuy liggéey ci goxu dañuy nekk ci commune Bambilor mais di liggéey ci wàllu média du ma ne ñëpp parce que mënuñu woon woo ñëpp mënuñu jël ñëpp mais ñi nga xam te ni ñu ngi servir commune Bambilor ñooñu déggante nañu ak ñoom waxtaan nañu ñoom te jox nañu seen idée te joxuñu ko woon tur aussi ñu koy gisee ñu déggante ñëpp hmm. jox nañ leen plus de cinq noms différents ñoom ñoo choisir moom moo tax ñëw donc wax ci nag nekkul wax kese wax la ak def ndax ko ñu nominé foog ñu am loolu la jox donc MPROD TV am ben lo loo xam te ni dina ko yëkkati dal koy teg ci loxo suñu grand bi grand Ousseynou Gueye donc bu nekk loo xam xaalis c'est de la part de <laughs> MPROD TV donc xaalis bu la ko joxee yow estay yi soxla bu ñu la ko joxoon da nga joxat joxaat donc li c'est de la part de MPROD TV par rapport ak li nga xam te ne mooy liggéey bu rafet bi muy def donc waaye par rapport ak li nga xam moo di kaddu yi nga xam te ne jot nañu ko dégg ci mom donc li la MPROD TV dal di koy yëkkati jox nga xam moy suñu grand suñu xarit suñu mbokk grand Ousseynou Gueye daal di koy nominer l'homme de l'année de personnalité partir de l'année 2023 moom mii la MPROD TV daal di désigné mais ànd seeg ay nit yo xam dañu la sen xalaat ñu daal di koy désigné mom tamit MPROD mo am idée bi moo ko waye waaye choisirul Ousseynou Gueye na ko gars yi dafa am ñuko choisir woñu wax ñu ñu ñëwee wo ñu wax ñu ni diw la ñu xol la majorité mom moko ko gagné donc pourquoi kenen amone tamit bu ñu waxoon kenen kenen lañ koy jox donc espéré ko en 2024 aussi bu ko nekkaté dañ koy indil wala bu ko kenen bu nekkaté dañ koy jox donc grand tay li la BT yi daal ah mais <laughs> ci deux bi li la eh, Moustapha. vraiment merci beaucoup. Mhm. de rafet na xana di jégg rek euh, prix bi ñu jox ko euh, waajur yi. Mhm. Euh, jox ko wa bamblor yépp mhm. jox ko aussi le ministre Ismaïla Madior. parce que aussi nit ki la cëral yëkki la. moo la teral donc euh, dama ko koy jox décerné ko ko. Mhm. xam ni peut-être lépp aussi moom la. Mhm. parce que aussi daf ma jàppale. Mhm. ba xëy na ma yegg si fii bañ may gën a remarqué par rapport di ma jox ay prix affaire yooyu. donc daal vraiment je dédie ça daal à toute la communauté de Bambilor. donc vraiment merci beaucoup ah c'est c'est très joli. donc rafet na mais bàyyi leen di sàcc sama photo yi waay. <laughs> mënta ñàkk ah, mënta ñàkk parce xam nga xam boo koy defal teraanga surprise nii rek la war a mel parce que tey jii buñ la ko waxoon. Mm-hmm. xam nga tey jii bindoon nañ ko nit ñi di ko dégg. mais ñu bëri gis ñu woon xalaatuñ xaaruñu ci woon lii pour ñoom ci écriture rek la yem. mais ñun ngi nañ ko def koo gis nañ ko waxtaanee ci war jut ñun improductif dañuy. diisoo di waxtaan mais prix day ànd ak enveloppe bi ànd ak enveloppe <laughs> prix bi àndul ak la prix bii prix improd la jox la ko. Ah, te yaakaar naa yow improductif bi bu la joxoon enveloppe dañu koy joxaat. <laughs> lii moom sama bureau laa koy teg. <laughs> Ah? na trop. su ma yeggee daal teg ko si table bi quoi ah? instant bi non non c'est très joli ça que c'est vraiment mooy góorgóorlu rek. Mm-hmm. Et je demande vraiment à tout le monde, à et à tous les acteurs, ñu gën mhm. parce que ñun euh, dañu am mhm. nga politique amul adversité man dama koy wax man na PS. Mhm. ñun ñu parce que ay xam PS. mu dem élection 96 mu liste ma moom mu nekk liste PS man ma nekk liste PRS. Mhm. loolu man dund naa ko. Mhm. te amul si benn pression bu ñu si am. malgré nit ñi doon nañ ko politiser. Mhm. nit muy miti. mais amul problème. lan la may wax defal politique la. mais bu leen wax wax ju ñaaw. kon politique wax ju rafet rek lañ si war. tey nimmi kente ñi dëkk Bambilor yëpp di politique bokk ñu ñëpp ay camp ñi ñi ngi si camp bi ñi ñi ngi si beneen camp. ñun nag yàlla def ñu boole ñu nekk si camp de la majorité. Mhm. di jàppale mag Sall bu baax. ba pare am sunu candidat muy Amadou Ba. Mhm. ñu fas yéene que campagne bu baax a baax incha allahu rabbi si biir Bambilor. pour mën am ndam. Mhm. gagné au premier tour. loolu la bëgg. loolu nag ñu ngi si oo ñëpp. mais aussi ñu def ko si jàmm ak salaam. mu nekk politique gu jàmm ñoo xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañ. Mhm. du politique moo ñuy jaxase. Mhm. politique bu ñu boolewul waruñu jaxase. Mhm. que ñi far x wala ñi faral y ñun diw la ñu faral kenn ku si nekk na respecte sa sa sa sa candidat wu morom et puis voilà c'est tout. toujours ba rek ñun ñu naan gars yi muñ leen. donc voilà <laughs> am na solo donc grand la mu remercié la mooy nekk mot la fin bi. waaw mot la fin di leen gërëm. et impro. donc euh, da ngeen da ngeen changé. <laughs> Euh, da euh, quand même ça il faut le dire Hein? il faut il faut quand même le dire en mhm. toute sincérité da ngeen innové. Mhm. il y avait un journaliste mën naa ko citer mhm. Mané. daana def direct mais football. football yi daanaka def. même même terrain basket ça daje naa fa ak moom muy def direct jamono bobu téléphone yi peut-être 4G yi bariwul won mhm. mais modem la daan yor. modem mhm. yu kii yi. Mhm. moom la daan yor diko yobale bu yegge fo am courant da kay brancher pour def direct. ça je l'ai vu je l'ai vu à Gorom 1 euh, non Gorom 2. je l'ai vu aussi au niveau du du terrain de football bi. donc euh, lu baax la. mais yéen léegi désormais avec 4G bi tout ça. vous l'utilisez avec vos téléphones c'est excellent donc vous avez des outils vous vous di utiliser. Mhm. vraiment daal jàmbaar vous euh, ay jàmbaar ngeen mhm. Continuez-le. jàppaleen aussi fi dara. Mhm. lu fi deful. man suivre page vous avez vraiment des followers you importants. important. ay les ngi suivre di plateforme parce que man sais que y a beaucoup de clients qui ñi ngi def ay commentaires les donc euh, voilà, je vous encourage. Mhm. Je vous encourage à persévérer et à continuer. Et je vous donne rendez-vous 2024 au Manekat homme de l'année. Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi. <laughs> merci beaucoup. Voilà quoi. Donc merci beaucoup, monsieur, monsieur Merci beaucoup, Yannick Rémi à travers Impro TV, la chaîne du renouveau. Rendez-vous très prochainement avec Yenen, Yenen, Yenen Khalat sur Impro TV, la chaîne du renouveau. Merci beaucoup.